di di lay nuyu Nabou di nuyu ñi ma bokkal plateau bi nuy nuyu suñu ami téléspectateurs yi di leen wax ni tey éducation dina waxtaane li nga xamante ne moom mooy sortie wu ministre de l' éducation nationale Serigne Mbaye Thiam foofee ca Saly moo wax ni euh, enseignants yi amuñu du yoon enseignants yi amal ay cours de renforcement payant ci li nga xamante ne mooy établissement public yi donc dinañ ko waxtaanee tey fii incha allah wax lan la ci yoon wax ak euh, lan la ci euh, li nga xamante ne moom mooy disposition Euh, juridique yi nga xamante ne moom moo régir ministre de l'enseignement ministère de l'enseignement supérieur donc tey dinañ ci ñëw ci plateau bi. en attendant l'arrivée de hmm, madame Faye Patou euh, Seck euh, man bëggoon naa laa laaj dañu bëgg dugg rek ci rubrique éducation bi. waaw sànq rek élément bi seen bu doon jàllale ci télé bi ñu gis ay xale yu mer ba fut. dëgg la dox ci mbedd yi di marche. waaw éducation bi yëngu na de. noo yëngu na wante dafa am benn mbir boo xamante ne aussi dañ ci war a bàyyi xel muy euh, le sens de la responsabilité xam nga sens responsabilité dafa am solo mooy soo ne système éducation système éducatif dafa am ñett euh, acteurs yoo xamante ne euh, ils sont fondamentaux mooy li nga xamante ne moom mooy état bi donc mu war a jël ay dogal war a def li nga xamante ne moom la war a def parents d'élèves yi ak élèves yi donc suñ ne état parents d'élèves élèves ak enseignants donc euh, tey euh, soo xoolee ci système éducatif bi nu mu bindoo maanaam généralement dañu naan centralité de l'élève centralité de l'élève boobu moom maanaam dañuy jël intérêt bi nga xamante ne moom waa enfant bi ñu mën ko teg devant alors que tey soo xoolee système bi nu muy doxee du noonu tey ñu nee éducation rek dañ naan nguur gi est-ce que def na lu mu war lu ko war suñu nee éducation dañ naan syndicat d'enseignants yi est-ce que ñu ngi ñu ngi yëngu-yëngal donc loolu du yoon donc ñuy appeler la au sens de la de la responsabilité wax ni euh, grève yi ñuy grève day impacter parce que tey soo jëlee li nga xamante ne moom mooy euh, mouvement d'humeur yi nga xamante ne moom la syndicat d'enseignants yi di dawal day am ay perte perte d'heure alors que quantum horaire bi ci décret bi nga xamante ne jël pour les gens pour les pour les élèves qui sont dans le dans le dans public parce que ils sont majoritaires mm. soo jëlee quantum horaire bi quantum horaire dafa am loo xamante ne chaque année dañuy jël benn décret présidentiel pour mën a caler li nga xamante ne moom mooy quantum horaire bi soo xoolee décret bi année scolaire bii nii ñu nekk mille deux cent quatre-vingt-dix la mm. lañ ko jël te soo xoolee ñu ne moyenne euh, mondiale bi soo xasee ba am neuf cent heures rek baax na alors que tey soo xoolee li nga xamante ne moom mooy syndicat inspecteurs yi bi ñu leen laajee dañ ne grève enseignants yi dina tax élèves yi perd douze heures par semaine douze heures de de de de de d' apprentissage d' enseignement d' apprentissage par semaine soo ko xoolee ci mois bi ñu ngi naan ak cent quarante quatre heures la soo ko xoolee ci semestre bi donc euh, tey njàng bi toll na foo xamante ne à chaque fois nit ñi dañuy grève suñu demee ba nga xamante ne à deux mois de l' examen ñu ne nan la ñuy paree programme soo xoolee programme mu Sénégal ce sont des programmes larges jë donc tey lan mooy problème bi mooy li nga xamante ne moom mooy doxalinu nguur gi li nga xamante ne tamit moom mooy doxalinu syndicat d'enseignants mm-hmm. donc loolu lépp soo ko jëlee dañuy toog ba ñu ne mois d'avril bi këtt na ne jon parce que gouvernement ak syndicat d'enseignants mm-hmm. ci mois d'avril lañ war a réunir mm-hmm. donc mais ak juin moo ñuy dese ñu dugg ci li nga xamante ne moo di examen nationaux su boobaa ñëppay taxaw ne nañu sauver année scolaire bi donc chaque année ñu naan nañ sauver année scolaire bi donc loolu day dem ba nga xamante ne day perturber li nga xamante ne moom mooy système éducatif alors que chaque année ay milliards la ñuy investir soo xoolee résultat yi nga xamante ne moom mooy na examen nationaux yi CFE ñu nekk 55 euh, pour cent la fekk 45 pour cent échec nañ bac ñu ne 30 pour cent la fekk 60 pour cent échec nañ alors que tey dañuy wax émergence dañuy wax développement donc dafa war a nekk yëfu nit ñi. Mm-hmm. éducation yëfu ñi la du yëfu nguur gi du yëfu euh, syndicat d'enseignants dañoo war a xam ni xale yi tey seen ëllëg fii lay fii fii lay tàmbalee ci éducation. donc su ma comprendre bu baax. 12 par semaine donc xale yi bu fekkee cinq jours la war a jàngi du lundi au samedi 4 jours rek mais xaar ma yokkal la si leneen dafa am li nga xamante ne euh, bi ma waxtaanee ak euh, ki nga xamante ne mooy secretaire général syndicat enseignement euh, syndicat des inspecteurs dafa ma ne heure yi ñuy perdre xale bi war a bi nga xamante ne dafa war a def 6 ans ci primaire maanaam CI ba CM2 suñ ko dajalee xale bi 5 ans lay def finalement hmm. maanaam dina perdre une année boo xamante ne ci wàllum grève la te loolu lépp day indi ay sooxe yi nga xamante ne euh, ci wàllum njàng meeg jàngale bi ñuy wax ni que niveau bi dafay baissé niveau mm-hmm. mais niveau bu bese bi aussi tamit quantum horaire xam nga suñu ne euh, qualité de l'éducation dafa am li nga xamante ne moom moo ko ëmb dafa am euh, environnement bi maanaam est-ce que classe bi en dur la est-ce que élèves yi ñu ngi toog ci ay table banc du ci ay briques est-ce que élève bi mur bi Euh, école bi am na mur de clôture parce que bokk na ci sécurité bi. est-ce que école bi am na ndox. est-ce que école bi am na électricité su ñu ñëwee ci wàllum euh, manuel didactique bi. est-ce que mhm. élèves yi am nañ ay livres. donc yooyu yëpp soo ko jëlee ci wàllum qualité de l'éducation la ñu gis ni am na loo xamante ne tey. Mhm. ñu ngi ñu ngi ñu nit ñi ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy waxtaanee mais dafa am loo xamante ne dafa am solo moom mooy heure temps bi nga xamante ne xale bi moom la war a passer ci classe bi pour mun ko jàngale. te dafa am euh, benn invité boo xamante ne am waxoon nañ ko fi Pape mhm. waxoon na ko fi dafa ne su fekkee ni tey euh, le nguur gi day def semblant di jël prise en charge euh, su fekkee ni tey nguur gi day nabu xam nga yaa ngi yaa ngi yaa moo du door a ñëw. Ah, moo Modou Mbaye wala kii nga jàkkaarloo. ah Modou waaw maa ngi ñëw ci non moom faral la weex hmm. yéen la yéen la mais Pape si dafa am loo xamante ne tey mhm. dañ ko war a xam ci système bi. Mhm. su ñu nee de l' rek dafa am ay facteurs yi nga xamante ne yu bëri. te moo ciy bokk. Mhm. dañu naan manuel didactique maanaam élève bi est ce que am na téere yu mu war a jàngee est ce que élève bi mu ngi ci benn classe est ce que enseignant bi formé nañ ko. loolu aussi dafa am solo mais tey soo seetloo li nga xamante ne moom mooy gën a sooxe qualité bi moom mooy quantum horaire mooy mm. heure yi nga xamante ne dañ koy perdre souvent. man Ibrahima am naa benn souci bu ma am parce que euh, début wu grève yi bi muy doog a euh, xëy na. Mm-hmm. Euh, daje jotoon na am ci diggante ñi nga xam ne ñoom ñoo di syndicats yi ak premier ministre syndicats yi ak nga xam ne ñoom ñoo di gouvernement bi. Mm-hmm. ba tax sax coow juddu woon na ci ñoom syndicats yi ni que bu ñu jugee ci élection de représentativité ku ne xam ne nu muy demee ñan ñoo war a toog autour de la table xëccoo bi amoon côté boobu parce que nee nañ ña fa teew représenté wuñu ñëpp léegi ndaje yooyu nga xam ne ñu ngi ko doon amal xëy na solution amul mais est-ce que amaat na beneen jéego bu nga xam ne gouvernement bi teg nañ ko ngir woo itam jàngalekat yi ñu mën a toog parce que depuis lors itam déggaatuñu leen ils sont restés aphones carrément euh, amuñu benn solution bu nga xamante ne tey ji mën nañ jàpp ni lii luñu lu nguur gi teg la mise à part benn rencontre wala ñaar buñu jotaan moo tax sànq dama wax loo xamante ne aussi dafa jar di bàyyi xel mooy sens de la responsabilité soo jëlee euh, système éducation euh, année scolaire neuf mois la am nañ trois mois de su ñu demee ba nga xamante ne parce que soo xoolee élection de représentativité yi l' année dernière la ñu ne année dernière amul benn grève amul benn yëngu-yëngu donc nguur gi dafa war a mettre à profit vacance scolaires nguur enseignants yi loolu lañ wax mettre à profit vacances scolaires yi mooy lan mooy woo leen ñu waxtaan woo waxtaan ñi nga xamante ne ñoom ñooy syndicats les plus représentatifs même ça je mets un d' interrogation parce que soo jëlee six syndicats yi nga xamante ne ñoom ñoo gën a représenté effectivement da nga war a rationaliser table de négociation bi mais yeneen syndicats yi aussi tamit bu ñu leen xeebal. Mhm. parce que soo xoolee tey grand cadre même su fekkee ni euh, ay sels bu Zumaaru ñoo fa nekk ay 6 pour cent la ñam mais am na enseignants yu topp seen ginnaaw. Mhm. soo jëlee FEDER am na enseignants yu topp seen ginnaaw ay kuréelu syndicat la. Mhm. soo jëlee li nga xamante ne moom mooy idée. mooy euh, initiative pour la défense de l' et des enseignants loolu aussi tamit ay enseignants la fa la fa ëmb donc bu ñu xeeb benn syndicat d'enseignants mhm. tey li ñu war a mettre en avant moom mooy intérêt xale bi donc dañoo waroon mettre à profit li nga xamante ne moom mooy vacance scolaires yi pour kii ko mais aussi tamit dafa am benn doxalin boo xamante ne tamit syndicat yi ñu ngi koy doxal te ñu ngi si seen yoon avant ñoo dem grève dañoo déposer préavis de grève. Mm. préavis de grève bi ngu yoon bi may na la un mois soo ko déposer pour nga mën a entamer ay plan d' action te soo xoolee préavis de grève yëpp ñu ngi ko déposer depuis ñii novembre ñii décembre donc depuis décembre syndicat d' enseignants yi ñu ngi euh, alerte ñu ngi yëngal ñu ngi kii mais ci mois de janvier bi ak février bi lañ commencé vraiment li nga xamante ne moom moo di bi mais tamit nguur gi soo xoolee rencontre bi passé dafa mm-hmm. def ay proposition mais proposition yooyu noonu tey mhm. ba léegi dégguñu syndicat d'enseignants yi ñu def pro soo xoolee point bi nga xamante ne tey moom moo indi problème bi mhm. muy euh, le le l'indemnité de logement mhm. nguur gi dafa joxe douze milliards ne à partir de 2019 ñu ne douze milliards yi naka lañ koy séddale ñu ne enseignant bu nekk dina am six mille francs ci li nga xamante ne moom mooy indemnité de logement dolli ko ci salaire mais ba léegi dégguñu enseignants yi wax ni ñun maanaam lii la ñuy proposé parce que soo ko seetloo tey si ñun franc yooyu waaw dañoo bañ pour le moment mm-hmm. lànk nañ parce que dañoo ne indemnité de logement boobu noonu dafa kii mais aussi tamit pour négociation yi avancer parce que nguur gi ak euh, syndicat war nañ daje ci mois d' avril bii nii. Mm-hmm. mais pour négociation yi avancer aussi tamit il faut que mu am des contre propositions. Mm-hmm. mais ba léegi ñun déggaguñu enseignants yi fu ñu taxaw pour def contre proposition. ñu ngi interdire ces produits ministre bi mu ngi wax ni ko kon jot nañu daal di dakkal ni ñuy fayee euh, cours yi ci lu jëm ci public bi waaw xam nga dafa am benn mbir boo xamante ne dafa am maanaam sorti wu ministre bi euh, pour nit ñu comprendre ko dafa am benn facteur boo xamante ne day faral di am ci école yi maanaam parents d'élèves yi tey gis nañ ni xale yi nañ leen di jàngale xëy na des na donc il faut ñu def ay cours de renforcement mais cours de renforcement boobu ne am na ñoo xamante ne ci école privée bi lañ koy defee am na ñoo xamante ne dañuy génn ci école publique dem defee ko seen kër am na ñoo xamante ne donc bëri na ay façon mais dafa am benn dogal boo xamante ne nguur gi jël na ko depuis 2007 te loolu la ministre bi wax euh, week-end bii passé mooy dañoo tere li nga xamante ne mooy cours de renforcement payan des enseignants mu évoqué nag ñaari mbir mooy question d'équité ak question d'égalité donc euh, su fekkee ni élément bi yemb na nabu dañuy dem seetaani ministre déclaration ministre Serigne Mbaye Thiam laata ñoo ñëwaat ci plateau pour waxtaani euh, dogal boobu. en attendant en fait li mu li mu li mu doon wax sànq ni que enseignants yi en fait ba leen ministre bi dafay joxe proposition jëm ci seen indemnité de logement dañoo refuser rek toog banque seen loxo mais joxewuñu benn contre proposition. donc mhm. ça renforce en fait ñi nga xam ne dañuy yaakaar ni wala ñi nga xam ne ci seen jàngat dañoo gis ni en fait enseignants yi wala boog syndicalistes yi dañu fi taxawee taxawaayu opposition maanaam coûte que coûte rek nguur gi comme te amaguñu adversaire de taille jëm ci 2019 bi donc ñoom coûte que coûte ñoom ñoo war a a taxaw en tant que adversaire donc loolu nekk na mbir moo xam ne man je pense que ni dekkul euh, ci loo xam ne dañ koy rafetlu si seen taxawaay ñoom ñoom jàngalekat yi d'autant plus que ni euh, gis nañ ni lépp li nga xam ne ñoom moom la ñuy jooytu on est tous pratiquement d'accord que ni euh, loolu dañ leen ko war a jox parce que seen ak ak seen yelleef la ñun ñoo taxawoon wala boog gouvernement bi moom moo taxawoon ne accord yi may naa ko def fii ak mmh. ñu dem ci beneen wàllu jëm ci li nga xam ne moom mooy nga naan dañuy bi naan à chaque fois dañuy baisser dañuy baisser on est tous d'accord que ne bu ñu gisee bu ñu demee université bu ñu ñëwee la première chose qu'on dit c'est <gasps> de étudiant bi ma taalal sama micro français bi mu làkk alors que pense que ne de parler en français parce que xam nañ ne après dañ leen jàppee gag donc lu ni mel je pense que ni euh, day nekk loo xam ne dañ koy accumuler de toute année bu nekk yaa ngi wax sànq ne ñi da nga xam ne moom mooy sa aptitude wala boog ci li nga xam ne moom moo mën a jàng donc on a l'impression ici au Sénégal peut-être que c'est juste ci kaw rek la ñuy la ñuy làmb problème bi mais que c'est beaucoup plus profond et que ni gouvernement bi autant que gouvernement bi autant que syndicat yi ils ne veulent vraiment pas que ce problème-là de l'enseignement soit résolu parce que bu ñu fekkee côté côté ñu régler ko rek côté solution je pense que qu'il dispose quand même de moyens pour pouvoir régler cette question une bonne fois pour toutes mais on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Mhm. oui waaw mais parce que man euh, dafa am benn lecture boo xamante ne damay faral dégg nit ñi di ko et je suis pas très d'accord bu ñuy wax ni euh, enseignants yi euh, ce sont des sont des opposants ou bien contre pouvoir. parce que li ñuy waxtaanee dafa am solo mooy éducation nationale. mais stratégie yi ñuy élaborer. voilà stratégie mais loolu xam nga loolu. Euh, communication la maanaam. Mhm. tey enseignants yi soo jëlee ci li nga xamante ne moom mooy protocole d'accord bi protocole d'accord bi dafa am ñetti mbir yoo xamante ne nit ñi dañ ci war a dañ ci war a bàyyi xel. premier mbir bi moom mooy revendication bi. dafa mhm. laal li nga xamante ne mooy revendication pédagogique enseignants yi lan lañ wax gis nañ ni am na ñoo xamante ne tey dañ leen war a former. Mm. am na ñoo xam dañ leen jëlee ci université ba ñëw dugal leen ci njàng mee njàngale bi ñu ne leen il faut ñu former wu donc loolu revendication pédagogique la mhm. donc nguur gi daf ci war a taxaw même su fekkee ni sax am na ay jéego yu ci jotaam mhm. beneen affaire bi moom mooy plan de carrière plan de carrière bi suñu ko waxee moom mooy euh, enseignant mënul nekk même su fekkee intégré na euh, fonction publique mais mënul di fayeeku le même montant pendant dix ans ou pendant vingt ans mhm. même su fekkee acte d' avancement bi dafa yéex donc il faut que nguur gi taxaw si dématérialiser procédure yi pour enseignant bi mën a disposer fonds yooyu noonu. Mm-hmm. parce que da ngay gis ni day dem ba retraite du mën a percevoir xaalisam boobu noonu loolu du yoon. beneen mbir bi moom mooy revendication pécuniaire mooy li nga xamante ne xaalis la laaj mooy ay logement bi même su fekkee ni dañ ne logement bi quatre pour cent ou cinquante pour cent du travail de l' enseignant se fait à la maison. Ouais. donc moo tax ñuy casse indemnité de logement parce que il faudrait nga préparer cours bi préparer li nga xamante ne moo di fiche technique bi. Mhm. xool li nga xamante ne moom nga war a mën a jàngal say élèves suba. donc élément bi euh, yemb na mën nañu ko dem seetaan. waaw ñu seetaanee ko xale nga xam ne dañuy jàng ci ecole bi ay doomu Sénégal lañu ëllëg su fekkee ne ñoom syndicat yi wax nañu ñu dem grève premier ministre bi yilif gouvernement bi yépp jël ci temps lu mat fukki waxtu mu daje ko ak ñoom ay membre gouvernement bi wër ko mu waxtaan ak ñoom ñu pare ci benn soxla boo xam ne bii soxla bu tar la ci jàngalekat yi maanaam li nga xam ne moom lañuy am ci ndàmpuwaayu dëkkukaay gouvernement bi ne leen fukki milliards ak ñaar danaa ko ci def seet leen nag léegi nan lañ koy doxalee suñu jógee ci loolu pour man li nga xam ne mooy taxawaay bi waroon ci ñoom mooy ñu ne comme ñi ngi waxtaan. li nga grève yi ñuy def nañu ko arrêté gum di continuer waxtaan bi ba seet waxtaan bi lan lay jur pour man loolu mooy attitude bi nga xam ne moo gën a responsable jamono bi ñuy waxtaan ñu dem di jàngi ba seet waxtaan yooyu lan lay jur loolu pour man mooy taxawaay bi nga xam ne mooy taxawaay bu rafet te nëbbuma leen ko bi ma toogee ak ñoom wax naa leen ko li lu grève bi tar tar tar dama bëgg waajur yi élèves yi xam ne gouvernement bi mi ngi continuer di waxtaan ak organisation syndicale yi Euh, Pape voilà élément baa ngoog waaw merci beaucoup jàpp nga ni monsieur le ministre dégg nañ la li nga jàpp yëpp. bu jàpp nga kontaan <laughs> mu ngi jàpp rek. Uh-huh. na jàpp enseignant yi boog. dëgg la <laughs> dafa mel ni ci loolu lay waaj a yëngu de parce que soo xoolee ci sortie yoon bii nii Pape Sidi. dafa am loo xamante ne wax na ko ci yëkkati na ko. enseignant yi foog ni euh, erreur de communication ou bien. ministre bi dafa bëgg a communication vers loolu mooy li nga xamante ne moom mooy enseignant yi nga xamante ne ñu ngi jàngale ci benn école publique. en même temps di jël seen i élèves di leen di fayeeku di leen di jox ay cours de renforcement donc mu wax ni loolu dafa am ay ndogal yoo xamante ne daf ko fa da nguur gi daf ko tere soo jëlee euh, benn loi muy décret 73 euh, 737 du 7 août 700 1973 euh, obligation d'honnêteté et de probité la ñuy wax mm-hmm. dañ ne il est interdit à tout fonctionnaire d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit et il peut être exceptionnellement dérogé par décret réglementaire et le mais dafa am benn texte boo xamante ne ministère de l'ense ministère de l'éducation nationale dafa ko jël muy benn lettre circulaire pour gën a mën a euh, ñaax enseignant ou bien wax enseignant yi ni euh, def li nga xamante ne moo di cours de renforcement payant ci établissement public yi dañ koy tere muy benn lettre circulaire boo xamante ne ça date de 2010 muy rappel de l'interdiction des cours payants dans les établissements et écoles scolaires et centres de formation publique lettre bi dafa ne euh, cette pratique va à l'encontre des principes d'équité mhm. et d'égalité des chances su ñu nee principe d'équité et égalité des chances mooy jox li nga xamante ne moom mooy xale yi tolloolee xale yëpp mhm. parce que soo xoolee tey ci li nga xamante ne moom mooy politique publique ci éducation équité bi daf ci am benn wàll bu bu kii parce que soo xoolee ci école publique peut-être su fekkee ni doomu nabu tey am na possibilité fay cours de renforcement dix mille peut-être doomu Pape Sidi bi du mën a am possibilité boobu noonu pour yamale élèves yëpp moo tax tey nguur gi jël dogal boobu Euh, ci li nga li nga tënk noonu ci li luwaawu Sénégal wax képp ku nguur di fay mhm. fa mu lay fayee nga fay liggéey pour lala nguur gi di fay maanaam di askan wi dajale jox la ko di la ko fay weer bu dee amoo droit def fa lenn di ca laaj xaalis boo paree nag bu la neexee mu yaa moom sa bopp paree su la neexee moom sa bopp mën nga dem ci école privée yi mais ci li nga xamante ne moom mooy euh, ndogal public bi mun waaw gouvernement bi moom ak yooyu daal yow mais man bi ma nekkee CM dama doon fay informatique su suñu biir euh, établissement chaque fin du mois 3000 waaw ci biir euh, xam nga loolu généralement su fekkee ni loolu am na fa mm-hmm. maanaam euh, dañuy appeler benn respon dafay am responsable établissement ou école boo gis dafa am responsable muy directeur ba mhm. muy principal ba muy proviseur ba mhm. donc nguur gi moom moo war a jël ndogal parce que ñoom ñoo nekk euh, voilà service déconcentré mhm. ci li nga xamante ne moom mooy euh, unité kii nguur gi donc ñoom ñoo war a jël li nga xamante ne moom mooy matuwaay pour mën a appliquer lettre bi mais connaissance Serigne bay Thiam peut ak ni muy doxalee ak exigence yi nga xamante ne tamit mu ngi koy def ci wàllum éducation nationale yaakaar naa ni proviseurs yeeg euh, directeurs yeeg euh, principaux yi du ñu mën a bàyyi li enseignants yi di ko fay def foofee ca école